di nuyu mboolem ñu ñuy teewlu ni ko waxee nag euh, ci mbirum bajaxate euh, waaw mm-hmm. lii moo ëpp solo gis nga ku tooñ moom mm-hmm. dañuy bàyyi yoon def ci yow lu mu war a def ci yow ku mu mm-hmm. mën a doon man suma ma tooñee dama yoon topp ci tooñ am na benn journal bu bind ci akanaa imaam Ndaw la sant mi naa ni dafa juum bu dee imaamay juum di jàngalekat mais dañ naan nit ku dul juum amul waaye am na juumte yoo xamee ni bu muy faral di am ndax juum mën ngaa juum fa xastalu mën ngaa juum ci la ma wax du nii laa ko bëggoon waxee waaye juum ci wax boo xamee ni da ci topp nit bu mu sës comme on dit di ci joxe ay lu nekk ci ay xalaat ak ay firnde wala la nga jàppee firnde loolu am na yoo xamee ni warul ci réewum Sénégal te war nañ ko dindi mais comme li nga wax man pour man c'est même plus l'actualité na yoon def liggéeyam la mu ci war a def ñu jàppee ko noonu te may doole yoon ndax loolu mooy yoon mooy may doole yoon ba nga xamee ni day am indépendance bu mat sëkk ba lépp lu mu décider ñu bañ cee jàpp ni dafa am benn main wala benn wax boo xam ne ni jóge na ci autorité te jeune pense pas que c'est le cas actuellement yaakaar romb nañu jamono jooju euh, ci li ñu gisagum mais gis na lu jëm ci euh, opérateur privé stockeur yi fay bi ñu leen fay c'est une bonne chose euh, ndax day tax ba ci lu jëm ci campagne bi ñu jëm mu am benn engouement boo xam ne yooyu les opérateurs privés stockeurs dañ ko am mais na OPS yi xalaat baykat yi xam tax ma wax loolu génne nañu tableau wu prix euh, yenn euh, li nga xam ne moom mooy euh, li ñuy jëfandikoo ci wàllug ay ay engrais ak semence ak yu ni mais boo xoolee ci tableau bi ñu génnee ren bi ñu génnee daaw dafa am xaalis bu bari boo xamee ni état da ko subventionné ñi nga xam ni ñoom ñooy opérateurs yi mais opérateurs yi ñaata la ñuy joxe wala jaaye kii di baykat bi foofu la coow li ne wàññil nañu ci lu jëm ci opérateur yi wala ñu euh, état yokk subvention ci yenn ci ay euh, ay semences yoo xamee ni euh, dañ koy jox opérateurs yi mais yooyu les opérateurs ñoom ñoo koy dem di ko jaayaat ñi nga xam ne ñoom ñooy paysans yi di baykat bi foofu la problème bi ne mooy dama lay man état. ñu ne lii tonne bi ñu ngi koy jëndee cent mille francs man ma ne man état maa ngi ciy dugal sama cinquante neuf mille francs donc cinquante neuf pour cent laa koy subventionné yow opérateur bi kon mu dikkee la à la euh, ci ci euh, wàllu xayma euh, lu tolloog quarante et mille waaye nga dem ci tonne boobu nga jël kilogramme bu ne la nga koy jaayee baykat bi boo xaymaa li nga jaay ci benn tonne bi yow dina la ëppal quarante et un mille yooyu di nga dem ba am soixante mille wala nga am soixante dix mille foofu la coow li nekk dama ci waxtaan ak ab baykat boo xamee ni baykat la di producteur di opérateur du ma tudd turam mais xam na li may wax mu may seetaan sûrement mu ne nit ñi dañoo juum ci mbirum augmentation wala bés ci wàllu njëgu semence yi dafa am augmentation subvention wu semence yi jëm ci producteurs yi opérateurs yooyu ñuy woowee opérateurs privés yi mais ñooñu la ñu koy jaayee baykat ba loolu la état war a xool parce que du méngoo ak subvention bi nga xamee ne état bi du baykat bi directement la subventionné opérateur bi la subventionné kay jox jiwu baykat ba moom la subventionné est-ce que warul am benn euh, benn benn beneen manière boo xamee ni baykat bi directement dina ci gis boppam ci loolu la ñuy xaar par exemple le ministre euh, bi ñu dénk wàlluk agriculture euh, di ma Mabouba Diagne c'est un secteur qu'il maîtrise parce que dafa nekkoon baykat laataa muy nekk ministre yore woon lu bari ci wàllu woowu fa la ñuy xaar tamit secrétaire d'État bi ñu dénk wàllu coopérative yi Alpha Ba Euh, ci li nga xame ni moom mooy jëm directement ci ñi nga xamee ni ñoom ñooy baykat yi gis na importance bi baykat am dañ ko war a sentir ci tàmbali nguur gi xamul tax président de la république baykat la. ci lu xam bay. Mhm. wax nañ la lu tolloog ñeenti hectares quatre virgule trois hectares yu mu am. seen mhm. njagañaaw. Mhm. di ci yàgg ci bay. te boobu dara xewul. donc xam na li ci mbay. Mhm. xam na jafe-jafe yi xam na li ci euh, euh, li mu ci li mu ko mën a dikkal. Mhm. ministre bi ñu dénk wàll woowu wax naa ko léegi moom it baykat la xam na li ci mbay xam na jafe-jafe yi nga xam ni moom baykat bi dina ko dund. Mhm. mais baykat yooyu tey ñoom ñoo waroon nekk ñiy jox xaalis réew mi. baykat bi moom moo waroon nekk ki nga xamee ni producteur bi day soxla sax. du état moo koy subventionné waaye moom baykat bi muy génne ci gafam du jox réew mi parce que loolu moom mooy wane ni tey am nañu wala ñu ngi jëm ci mbirum autosuffisance baykat bi kilifa la war a doon buur la war a doon ci réew mais demal ci réew yi nga xamante dañoo développé mhm. dañoo jël seen alal mhm. jox ko baykat bi muy liggéey ba tey baykat boobu bu ñuy wax ñoom ñooy yore trust yi ñoom ñoo yore euh, euh, ranch yu mag yi demal États-Unis demal Chine demal Japon réew yu mel nii ñoo xamee ni dañoo dund guerre mondiale ñu dem ba beneen période daara amatu fa mais ci lan la ñu miser ils ont misé sur l'humain sur l'homme ni ko le président Bassirou Diomaye fay bindee ci programme am jël lépp jox ko doomu aadama nit ki mise sur cet humain là humain boobu boo ci miser da ngay xool tey ñu ne ci Sénégal ci dix-huit millions d'habitants ñu ne la ci ñi nekk ci secteur actif di liggéey ña ca ëpp ci wàllu pourcentage ñu ngi ci tool yi la ne am ñu ba tool yi ñëw ci taax yi euh, ci dëkk yu mel ni Dakar ak feneen pour lan exode rural parce que xañ nañ leen suuf wala ñu am suuf waaye amuñu luñ koy bayee wala bu ñu amee euh, engrais amuñu machine bu ñu mën a euh, viabiliser wala gën a ñoŋal li nga xam ni moom mooy seen production loole yëpp ay levier la yoo xamee ni suñuy gouvernant je pense que le président l'a compris même dans son programme il veut mettre l'accent sur cela euh, li ñu war a def mooy fexe ba baykat boobu euh, au-delà de fay producteur bi mais ñu gën a dooleel baykat bi pour mu mën a am ay jeexital. bokk na si li nga xam ne moom moo gën a ci bésub tay bi jëm si wàllum